dafa mel ni seen xel duñ ko liggéey duñ ci liggéey euh, yonent bi sallallahu daf ñu nettali lu metti lu tiis luy ñëw ci àdduna bi waxoon na avant mu génn àdduna def na jamono ngi ñëw ca lañ toll lislaam su ngeen sàggoonu ci lam ñi la yem yaa rasulallah dëgg la de cey Muhammad yaa xam jamono tey bam naan jamono gi ñëw bu ngeen sàgganu bu ngeen sàgganu islam seen lamiñ la yem lu tax ñu wax la mën ñi war a wax dañuy noppi ndax ragal a wax ana lu tax ñuy ragal a wax ñoo ko xam ak kañ ko siqal ak lu tax tey ñu seen bëy seen wéjur ak la ñu doon woon tey ñu respecté wuñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo gisee tey moo am problème ci côté état ñoom waa Màkka xam nañ ne yonent bii la yàlla dénk àdduna bi ak àllaaxira ak aljana diine ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko jàngal mu jàngale. waaye teew nag ressources yi am yëpp mu ngi ci loxo Seydina Muhammad léegi nag ñi nga xam ne bii seen calcul lépp mooy teraange àdduna lañ gëm ñu nekk nañ fexe ba éliminer waa kër Seydina Muhammad ba ñu jeex ndax ñoom ñu mën a gouverner kon lii xew tey jii ak ak a yàgg ma indi ci histoire mooy xam ne bii mooy xare Karbala. Seynabu xare Karbala mhm. dañoo fexe ba rey rakk yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu Seydina Ali fa la tàmbalee mhm. kan ma ko rey waa Màkka te ki ko rey du yéeféer jullit la du nasaraan jullit la même musulman ñu jóge fa rey taawam muy kan muy Xasan nuñ ko reyee dañ ko posone xam nga jabaram lañ jaar manipuler ko bi naan nax ko ne ko lii lay jox soo ko jox sa jawar ba mu faatu yow kat Yazid mii nga xam ne tey bàyyi mooy Muawiya dina la fal jël la soxna ba pare jox la teraanga jigéen yëpp. Mhm. nekk dañ koy nax ba ba ba ba ba Assane dee xam nu mu def moo war a taajuboon gi ngay dégg ba mu ñëwee ne ah ki ngeen ma rey la woon ci poson ma rey naa ko ñu ne ko ah nga baal ñu àq ñun ñun daal daañ la jox xaalis. remercier la waaye takk la moo mënta nekk dañuy bañ la nga defoon sa jëkkër nga def ñu kii xam nga kon nax nañ ko. ñu nekk ki ku des nag mooy rakkam mooy mooy Ousseynou Ousseynou mii nag mooy coow li Ousseynou mii nag boo xoolee yi ma wax yëpp politique la rek la doon diine politique la waaye yor yàgg na ci àdduna bi léegi nag comme seen baay ña ko reyoon ci Irak muy imaam Alin imaam Alin moom nag moo yoroon gouvernement. adduna bi yëpp ci jamono julli ña Iran. Mhm. Pakistan Turkistan ñoom ñëpp asiatique yi lépp ngoon ak Makka ak Medina ak Taïf ak Jidda Seydina Ali moo ko yoroon fekkoon na mbay mi baaxul woon waaye Irak léppam baax na ndax lépp dox na fa mu jël pale bi yóbbu ko foofa mais teewul fañ ko fekk boom ko ñu nekk nag comme nag ay doomam fii ñu ne fu bu ñu reyee waa kër Rasulullah ñoom dañu mën a toog ci kaw pouvoir bi mën a gérer état bi gérer économie bi déglu lu baax li may wax léegi nag waa Irak bi nga xam ne bi seen baay moo fa nekkoon imaam alin ñu bind Ousseynou ca Madina ne ko sa baay fi nekkoon nekkatu fi kon ñëwal jël sa xilaafa baay binduñ ko ay lettres bari mu yebal benn kii naan porte chef de porte programme na muy muslim mu ko demal nga xoolal ma muslim ba mu demee. tatagal nañ ko talal nañ ko siyaar nañ ko waaye dañu bàyyi benn guddi ñu kóotetaa ko rey ko waaw léegi nag ñu bindaat benn lettre na ko ussi nu ñëwal tii sa nonay bàyyi mooy ñëwal jël pouvoir bi Abdullah ibnu Abbas Abbas ko jur te Abbas mook Abdullah mi jur Seydina Muhammad ñu bokk benn papa mu ne ko li naan mag baax na ci kër Seynabu max ba mag baax na ci réew baax na ci pénc baax na ci commune baax na ci quartier baax na ci jàkk baax na ci baax na ci baax na ci moo ne ko Ousseynou yow de yaay suñu kilifa te maay sa mag déglu yaay suñu kilifa mais maay sa mag ndax nag Seyduna Muhammad mooy sa maam Fatima mooy sa yaay Seydina Ali rakk Rasulullaay mooy sa bàyyi kon ci wàllu kilifteef yaay sunu kilifa yow de lànk nga ne foog nga dem wuy ji ba ñu numa la loola ndax kàddu gi ci yow la des waaye nag xel day du jar dara lu xalaat yow de bu yàggul nga yónni muslim mu dem a seetale te boo ki nga yónni ba tey ñëwul jox la jox la jox la Noël war nga toog xaar te ñu ngi ko seqal warkat lañ de ñoo reen sa bàyyi mu ne ko demay dem mu ne ko ay Ousseynou mag de dana xool gis lu kawet lu xale dul gis mu ne ko demay dem. mu ne ko nag d'accord naa comme nee nañ la soo ñëwul ëllëg bu ñu yowmal qiyaam bu ñu taxaw ci kan Seydina Muhammad sa maam taxaw ci imaam am sa baay ëllëg da nga am gàcce ndax dañuy kaa jox la islam bi nga bañ fii nag la ko doon gor amudul kàddoom la déparé yow Abdullah ibnu Abbas dafa da ñëw ba jur dénk ko ne ko ne ah man de am naa lu may tiit am naa loo xam ne ngi daw sama yaram wii te musuma géwante mukk mu rate ma amar sama xel mi tëb tëb tëb tëb di yëngatu te gisuma la may gis te nga fi bàyyi gone yi te nga dem yóbbu luuti ci mag ñi mu ne ko su may dem waa kër Seydina Mohamed ñëpp laa yóbbu foofu nag Abdullah ibnu As fa metti ne su ma mënul yuuxu ba waa Màkka ak Medina dégg ma ba dem danaa ko def ay waay waay kilifa toogal mu ne dem mu ne ma alors Abdullah ibnu Abbas comme kilifaam la mu ñaanal ko na ko nag waa Medina ngoog waa Maka ngoog daal di départ euh, dem na yóbbu gone yëpp njabootu Seydina Mohamed ak ñi xam mooy seen kilifaam euh, Ousseynou dafa ñëw ci benn barab bu ñu daan Karbala fële toog di noppaloo nekkate Yasid yabal naa ay nit pour ñu jëli ko xoolal pour ñu jëli ko téye ko otaas. waaye dafa ñëw ba balaa taxaw ne day noppalu mu ànd ak mu gis benn géwél boo xam ne dafa demoon Irak benn cérémonie mu tudd Faras Daq Faras Daq bàyyi ko ne Irak am benn waay ci ñi ànd ak Ousseynou ne waaw yaa Ousseynou fas wala may siin mu weex taal te am lu xonq ci tànk yi dafa mel ne Faras la de communicateur la mun ko demal ngeen wooma ko bu Faras Daq ñëwee ci imam Aline Ousseynou ñu ñu tàggu leen mu ne ko yaa Ousseynou ahli bayti Rasulullahi saligal ko ndokkeel ko nag ndax kii mooy dertu yoon ci al Muhammad ne ko Ousseynou foo jëm mu ne ko maa ngi jëm Karbala maa ngi jëm maa jëm Irak mu ko loo fay wuti ko ñoom ñoo ma woo pour ma ñëw téye samay noonee bàyyi Ousseynou ne ko waaw waa waa foofa noonu lay gis ñun ñu mel géwél bi na tekk siggi xool ko tuuru mu ne foo jëm mu ne ko Karba maa ngi jëm Irak mu ne ko ah. am na lu fa xew bu yàggut de te nag ci sa njaboot la bàyyi ko ama ko fi yónni woon mun ah kay de dañ ko fa mujj rey ba mu ñëwee commencement ñetti fan bu juree fan mi ngi waaraati jàkk ci fees mu mujj na bis bi ñu ko bëgg a rey nag état ba na bu kenn dugg ci jàkk ci ke ko fekk fu rey ko rey gu metti yow nag yaay yaay taaru islam yaay doomu fatimatu bintu rasulillah yaay doomu seydna alin sa maam mooy seyduna muhammad te yow la islaam yaakaar te nga toog la ko Abdullah ibnu Abbas waxoon ca Madina dégluwu ko géwél bi bàyyi ko ca cérémonie ca dëkk ba wax na ko la xew ca dëkk ba mu ne ko ñaar daal xam naa ko Zeynabu mhm. ñaar xam naa ko boo dee dem ci yàlla rek tax la yow la ñu àndal ndax sa maam mais bu dee affaire état rek la bu dee rekk affaire adduna la dañ lay war fa la ko waxee ne bu dee diina la yow la àndal mais bu dee xeex bu dee jaase la dañ lay war effectivement loolu am foofu nag xale yi commencé jigéen yi commencé jooy mu dalal leen gis nga baat gor amulul baatam comme la joor ak sëñ Tuubaa amulul baatam mu ne comme xas naa ba tàggoo dootuma dëppati waaye Abdoulaye Abdoulaye sa ko metti mooy xale yi mu yóbbaale est ce que dañ dellu si waat allahu akbar foofu nag la yësit mi la woon na jëri ko premier convoi ñu ngi négocier mu yebal deuxième convoi bi nag kii nag moo indi événement bi kon dafa mel ne. convocation mën na am ci état mu am yeneen état yoo xam ne bii GIGN la ñoo xam ne ñoom dañoo tax lu bu ñu lu neex la ñuy def déglu leen baax la may wax am ku ñu naan Zou San moom mooy chef de délégation bi c'est commandant ba mu ñëwee mu ne waa premier convoi yéen kii kilifa ga suñu kilifa waxoon nañ ko jël si indi ko lu tax ngeen toog fi terrain mu ne ah ba tey ñu ngi nekk ci négociation ndax lan xale yaa xale yaa ngi di jooy jigéen yaa ngi jooy ne du ñu dem dañuy dëppaat. mu ne dañ dana ñëw far force coow li nag ngeen baal max fii la tàmbalee. Mhm. moom bu déglu woon na ko kee dana ko indi leen ma ko rek ma téye ko ndax ma ndax ma mën a gouverner attention comme li fi am jàpp nit tëj ko kaso ndax la du ma ne candidat jàpp nit muy mag naa ko éliminer ndax ma mën a continuer waaye sa sa say frère mënuñu doon. so doom mënu ta doon saxar mënu ta yii yëpp bi mu amee ba am nag léegi nag mu ne ko eh, Ousseynou da dem nii u dem naa mu ne ko yow yow yaay kan mu ne ko ana ismi suu jaw san mu ko la yóbbal mu ne ko yasid ibnu muawiya sibtu abu sufyaan ummuha ummuha kan la kan la mooy hind zawja abu sufyaan Ousseynou xam nga mag ñi dañu xam démb ak tey mu ne ko yow yaa ma yónn xaj boobu ngeen baal maaq moo may wa mu wuyu man sëtu Seydina Muhammad di noobal ci deret di noobal ci jikko sama maam Ibrahima ak Ismaila moom àdduna ak alaxa man koo xam ne bii kenn xamul nday baayam doomu bataar ngeen baal maaq moo may wóoti kuy di mu dema téye mu ne ko ah bon ñun nga saagu suñu kilifa mu ne ko saaguma seen kilifa lim doon laa ko wax fa la xeex ba tàmbalee fii la xeex bi tàmbalee ah la ci am ñaaw ñaaw na na ñëpp ba mu des Zeyd ibn Alin Fatimatu non ibn Alin Asana ko jur ñoom dañ daan jël di tuddante seen biir Zeyd Alin mi ak Zeyd ibn ak ak ki nga xam ne te mooy sëtu Seydina Muhammad mooy Zeyd Abidin voilà Zeyd Abidin nag moo jur sërif yi di ñu maamu Cheikh ak Ahmad Aydara mi léegi bi ñu rey ñëpp ba rey is Asan Useynu nu ñu def dagg boppam. jël ay fas yéeg ci kawam ba mu ba mu yàqu lu ton nii dootul yéen jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ngir àdduna ndax lan ngir politique ndax lan ngir at ngir état tey ñooñu ana ñu ñëpp dee nañu te yàlla ngi leen atte seen biir bàmmeel te yow war xam yow gut te ñu ko def même musulman ñoo ko def du benn chrétien du benn yahut du benn yéeféer même musulman ndax problème intérêt économie fii nag le Seydi Ibn Ali jigéen la daw laxasu. Zeyd Abidin ne eh rey leen ma waaye xale bi kenn ko rey ndax kii mu si ci xeetu rasulillahi te boobu ma ngi feebar ba loof am ñu ne kon nañ ko bàyyi comme xale bi daa feebar nekk xale bi ñuy bàyyi nag moo meññ Abdul Qadir Jeylaani wa Cheikh na Tidiane ñooñu nag ñëw Irak ñëw Madina bi ñëw Medina tas dugg Égypte jóge Égypte ñëw Libye ñëw Tunisie ñëw tas Mauritanie dugg Fouta dugg Gambie dugg Chine. ba tax ñu am sërif yi ñëw di ba Casamance lii boo gisee may résumé ko mooy. Mhm. pexe mu bon yàgg na ci àdduna waaye keroog ba ñu ko reyee indil bopp bi moom yësi dafa yuuxu daanu xam ne ko def lii ndax ndax sa daa bëgg ne booba daa bëgg lu neex buur kon léeg lekk nit bëgg lu neex président de la république ba tax nga mën nga éliminer nit fekk te sanction moom ci boppam dañ ko rey keroog waa jooju suuf jaww jox na waaye sax waxuma ko li ma wax mooy. loo gis day jeex Seynabou kullu nafsin zaiq kullu nafsin zaiqatu mawti bakkan bu nekk da nga dund da nga dee te fu waay def yàlla dana la ko atte ana yonent yàlla Muhammad ana saaba bi ana Firawna ana soldat ma ak ana maam Adama boo demee jiite fekk mu tëdd trois kilomètres la xaw ma deux deux la. aadama moo ñu mel ñu ñëpp kañ la faatu bat ma ngi tëdd bis yomal xaam xaar ana ma ngi fi nekkoon ana Cheikhul Khadim Seydi Hadj Malick ñooñu tey ñu ngi ci leeru islam ndax lan seen jëf ju rafet seen yéen bu rafet seen xalaat bu rafet bàyyi fi lu rafet kon tey jii àdduna bu gàtt boo xam ne bii daanaka qalilan yukfika wallahi min xayrika si ne yoo dëkk damay ko moo tax mu ne la al amiru jairun xayru min fitnatin amilun xayrun fihi wa fi wa fi xadisan yaraaha sallallahu alayhi wa sallam amiru jairun buur bu juumee moo gën réew mu juum ndax démb nag réew mi juum nañu waaye buur juum na réew mi juum na mais buur juum na mënoon naa artu lii bu am bu mu am ndax lu ko jar ndax problème bi nit ak nit la du nit ak état wallahi la si nit ak nit la du état xoolal kilifa ñu jàpp ko di ko pamte pamte boo ko xool sa sa yam day daw jam nañ ko dara wóoru ci pikiir nañ ko dara wóoru ci xëpp nañ ko sunguf dara wóoru ci waaye yàlla xam na lépp inna allahu huwa basirun alimun yàlla gis na te xam na te dara jël ko bu dee soldat da ngay retraité après boo retraité nag nga xool analyse lan laa doon def ci la ñaaw ñu def loo ma ko yàlla ne na lépp dama ko pointé kon sëy na damay ñaan monsieur le président daal encore nit bu jiite la xolam te jiitul xelam mën na juum te am na yoo xam ne dara jaru ko te yow yowmal qiyaam yàlla nee na ëllëg agresseur laay njëkk réglé ñi kan ñi di leen dóor yonent bi nee na yoon ñooñu lañ yàlla njëkk réglé moo ñuy tudd deret jaamur ñi te nag billaahi ku xamoon ne safara méttee waaw man nana nee naa juddu màgg tekkiwu ma dara aw ma dara aw ma soxna aw ma dara nana day dem safara nga ba ñun dund moo ko gën màgg amoo daal di jël jaas yi di kat ñi di leen dóor nga bañoon dund moo gën ndax benn pet adduna bi amoo ci soxna amoo ci dara te yow man xam jahanama nga jëm safara nga jëm kon xutba ajuma mooy actualité te actualité lii xew ci jamono di ñaan yàlla subhanahu wa mu monsieur président sonk yàlla ko yàlla delluwaat ci sagom mu dellu ci njabootam ñi ci gaañ ñëpp yàlla na yàlla def ci ñoom ñëpp ñëpp ñu wétta jóg ñi nga xam tamit gaañuñu fitna bi dafa yem. waaye fitna ni mu yem yam mooy ñi war a wax nañu wax ñoo xam seen kàddu for lool ci réew mi ku ci nekk am nga taalibe ay million taalibe ah ausubillah li li ma bëgg dégg na dàkk wala na dàkk mais lan moo leen tee ba bañu wax te yent yàlla ne néew na asakit alxaq an cheytaani thumma wa ahras képp ku gis dëgg ragal koo wax seytaane bu muuma nga yonte be ko wax man ko damay nettali te kook ñu nett nag moom laa gëm man yéen ne képp ku war a wax te nga ndoppi bara war a wax te man a wax seytaane bu muuma nga muhammadu rasulullah ko wax te nag dafa naa yonti moo féeti kaw ñëpp mais yàlla ay kilifaam yàlla nee na al fitnatu asadu min qatli fitna gën a metti nga tër ni di ko rey wër ma man ñi ngi ma ñaata di war a dee ak waaye ñàkk pouvoir moo gën a metti sukuraat ñu ne kon fitna màgg na lu ci yonent yàlla Muhammad teg sallallahu alayhi wa sallam mu ne fitnaa ngi nelaw cay ku ko yee yaa rabbuna mais kan moo ko yee ñaari phase yëpp lay doon kii opposé wu la la la bëggul li dal ko kii nekk au pouvoir mën naa seeral mooy yor uppukaay bi upp lépp mu sedd ak ko yomb mais lan moo ko tax ba mënu ko wax parce que koo wax rek mu wut prétexte ne yoon yoon la déedéet yow yaa yoon. yow yaa atte yoon yow lañ jox ngay atte ngay fal ñi atte koo ci woo de ko na dàkk wallaahi day dàkk di loolu rek la di ñaan yàlla tabaraka taala yàlla yàlla sutural réew mi ndax tey jii euh, ku yoon si Ahmad Bamba alaaji Malick Seexu Omar am na la naqari ku yoon si sëñ Saliou Ba alaaji Aziz am na leen naqari te nag dara jël ko lu dul nguur te nguur nakam yàlla moo yóbbu ruu sàkkatuma nguur wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu